Bienvenue sur Salam Vision. Mesdames et messieurs, bienvenue et vous suivez les programmes de Salam Vision. Voici quelques flashs d'information à la présentation signée Cheikh Oussaro. Après Plaïssar, le ministre de l'Action, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, euh, de donner le bon exemple concernant cette vaccination des doses. C'est au tour du chef de l'État, le président Macky Sall, euh, qui va se vacciner ce matin au salle des banquets de la présidence de la République. Elles sont toujours avec ont bel et bien reçu leur dotation euh, de cette dose du vaccin lancé euh, hier, euh, la directrice générale euh, de la pharmacie nationale d'approvisionnement, Annette Sek Ndiaye. Euh, plan euh, judiciaire, Agissar devait être entendu ce matin par le huitième juge d'instruction concernant l'affaire Ousmane Sonko, qui continue de défrayer la chronique. pour le cas d'Ousmane Sonko, les députés se pencheraient en séance plénière pour examiner euh, sur la situation euh, qui prévaut entre Ousmane Sonko et euh, cette fille Aguissar. Pour rappel, euh, son immunité parlementaire sera-t-il euh, lancée ou pas Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'actualité nationale, parlons toujours de la situation politique. Beaucoup de Sénégalais déplore et fustige ces séries d'arrestations euh, concernant euh, le dossier Ousmane Sonko. Euh, pour rappel, un enseignant a été euh, capturé hier, c'était à Sidiou, lors d'un cours avec ses élèves. Euh, le QSEM se déplore et fustige ce comportement de la gendarmerie. Mesdames et messieurs, vous suivez les programmes de Salam Vision sur l'international. Le candidat malheureux à l'élection présidentielle du Niger, l'ancien président Maman Ousmane, a contesté cette élection présidentielle, dit-il, est un hold-up électoral. Et enfin, nous terminons en Côte d'Ivoire. L'ancien président Laurent Gbagbo est annoncé dans ce pays très prochainement. Laurent Gbagbo, qui vit en exil en Belgique depuis de deux ans, a été euh, capté par la CPI, la Cour pénale internationale. Tout de suite, la version mbokk yi asalaamaaleykum ñu tënk ko si ko ci Barma ginnaaw la ministre bi nga xam ne dañ dénk euh, wér di Abdoulaye Diouf bu mu ñaxtoo kii di njiit réew président Macky Sall nag tere ñaxtu euh, fële ca banquet bu présidence de la république. li jëm mbirum Covid boobu xam ngeen ni euh, jamono ji ki nga xam mooy directeur général bu formation nationale d'approvisionnement di Annette Seck Ndiaye nee na nag jamono ji région yëpp def nañu dose de euh, vaccin ñu ngi ko doon ñu doon jàkkaarloo ak taskatu euh, xibaar yi. dañu dem si mbirum au euh, plan si mbirum yoon ndaw si nga xam mooy Adji Sarr seqaloon Ousmane Sonko jamono ji nag ñu ngi koy déglu ki xam mooy juge d'instruction bi jiite juróom-ñetteelu cabinet jamono nag ñu ngi koy déglu bu baax diggante moom Ousmane nag Sonko naka la demee woon Sonko boobu nag moom nag ëllëg àjjuma si lay député yi. Euh, waxtaan en science pleine nga xam ne yii te semi ngir euh, ay kiray Ousmane Sonko nañ si ñëw si yeneen euh, xibaar mbokk yi ñuy doxantu fële ca bitim réew xam ngeen ni fële ca Niger xam mooy Mahmoud Ousmane nekkoon candidat malheureux ñaari tour élection présidentielle doon xëcc nguur yi ak Mohamed Bazoum nee na moom li mu gis dafa nekk ay njuut ñaar ci élection présidentielle fële ca Niger ñu ngi koy tënk fële ca Côte d'Ivoire ki fi nekkoon président Laurent Gbagbo ñu ngi koy séntu mi mars euh, début mars moom nag war na dellu si fële ci Côte d'Ivoire ginnaaw bu ñu ko tegee loxo fële ci CPI Laurent Gbagbo dañu ko tuumal fat ay doomu adama yi bare bare ginnaaw ginnaaw nguuram atum 2010 euh, yoon ay tënkaloon si xibaar si kàllaama Kocc Barma mbokk yi